man dama damay damay wax ci culture parce que je suis un grand militant de la culture mm-hmm. et ça va au-delà de la musique ça va au-delà de la musique ma lay ma lay wax léegi ne la man très jeunes lay gis Mbaye Ndiaye muy ñëw suñu kër Mbaye Ndiaye wala Ndiaga Mbaye Mbaye Ndiaye déjà man ak moom man ak ay doomam ñoo bokkoon classe <laughs> Kambik Kambik un très grand chanteur ak ak Ndiaga Mbaye aussi yàlla na yàlla yërëm ko amiin moom aussi da daan ñëw sama wëllëri maam la woon da daan ñëw kër ga di ko seet si ah, Thiadiaye donc mais bu weesoo loolu yëpp il faut que d'abord ñu replacer ñun ñëpp xam solo bi nga xamante ni culture ak sport am na ko ci suñu dund parce que dafa mel ni loolu ba tey nekkagul consen consensus y a un paternalisme extraordinaire boo xamante ni dafay feeñ ci ñi jiite d'habitude bu ñuy adressé wu ci yenn corporation yi dafay mel ni ñoom ñoo leen war a xalaatal li gën ci ñoom ñëw defal leen ko imposer leen ko te en amont duñ leen associé ci réflexion bi wala élaboration stratégie yi sax pour génne leen ci guuta bi ñu nekk. Mm. wala mise en œuvre moom kenn waxu ko xam nga fi mu ne nii on a parlé de de plan de relance. de l'économie mais où est la place de la culture et des sports ci biir plan boobu su ma nee des sports nag je vais vraiment au-delà du sport bi nga xamante ni d'habitude moom mooy gën a cristalliser mais yeneen sport yépp ak discipline associée yi. donc dama jàppoon ne Covid bi bu ñëwee dina nekk un grand moment d'introspection pour ñu xalaat nan la ñuy càmbaraat yu bari bokk na ci ñu repenser le ministère de la culture. parce que ci biir mbas mi on a vu le ministre de la culture quand même. mu illustré wu ci façon yoo xamante ni daf ñu rappelé waat ndax moom xam na en réalité lan la ministère boobu regorgé dëgg dëgg dëgg. ça va au-delà de la musique mais bari na loo xamante ni xam nga bi kilifa gi di wax naan. culture sax moo nekk au début et à la fin de tout développement kon kay il faut que ñu replacer ko tey jii au au delà de de de de yenn discipline yi ci nekk muy culture muy sport dafa am yeneen valeur yu ñuy charrier yoo xamante ni mais dañu war a accompagner un processus de développement surtout un état en construction comme sunu bos bi nga xamante ni pas émergent monsieur le maire du d'accord du ak man mais candidat à l'émergence quand tu candidat à l'émergence dafa war a am yoo xamante ni waroo koo mën a bàyyiwaale donc pour man saisissons l'opportunité ñu dem au-delà euh, ñu daal di def une réflexion globale ba nga xamante ni dinañu mën a dugal ci ñu mën a projeter wu sur les années à venir par rapport ak ce que nous voulons de notre sport et de notre culture et des acteurs culturels ba pare ñu d'accord Hmm? waaw ba pare ñu d' accord ci lan mooy culture. Hmm. d' accord ci lan mooy sport ak nan la ñu bëgg ñooñu évoluer ci ba nga xamante ni xale yi hmm. dootuñu ci dugg parce qu'ils ont échoué quelque part waaye dañ ciy dugg par conviction gis nañ ci opportunité d' affaire. dootuñu ci dugg aussi parce que sama papa da ko doon def wala sama maam da ko doon def waaye dama ciy dugg parce que damay jàng <coughs> am ay diplôme yu mag te du ma permettre du ma du ma tere ma lier sport et étude comme ni ko góor gi si Dieng di defee wala. culture ak ak étude comme ni ko Felwine par exemple nga xamante ni euh, il a fait pas mal de trucs ak ñoom Malal ak ñeneen. Mm. donc je pense que ne il y a un changement de paradigme à faire et si on est encore dans les urgences qui vont chasser cette priorité là qui est aujourd'hui de réfléchir de s'arrêter parce que le Covid nous donne l'opportunité parce que tey jii bërina na ay acteurs culturels yoo xam mën nañu génn wax mais am na acteurs culturels yoo xamante ni nañu génn wax mm-hmm. te pourtant ñoom ñëpp ñu ngi ci culture bi donc et quand je de culture mais ñi nekk dans même la religion dafa bokk ci culture mm-hmm. donc il faut na aille au-delà il faut pas qu'on s'arrête paresse intellectuelle waruñu jàpp ba nga xamante ni am na leneen li par rapport aux salles ak manifestations yi ñuy def bi Covid bi di tàmbali dama wax ne man yeneen réew yi may xool yëpp sur les bonnes pratiques dañu réfléchir sur le calendrier jusqu'en 2022 2023 calendrier ñu xool les grandes dates les grands moments ñu xool lii bu accès nan lañ koy aborder et je pense que loolu aussi dafa des ba tey ci sunu réew gars yi amuñu lisibilité bi li ma naqari nag wax naa ko mooy paternalisme bi il faut qu'on arrête quand même jàpp ne nit ñi dangay ngay war a xalaat à leur place te doo leen impliqué jàpp ne ay ay gone ngay waxal wala ñoo xamante ni yow yaa leen ëpp xel il faut les associer la réflexion très et qu'on aille au-delà ñu wax ñu ban place le sport ak culture am ci sunu plan de relance bi nga xamante ni moom la tëgg fi mu ne